suñu partenaire yu nga xamante ni mooy euh, Winrock ak euh, Winrock ak euh, USAID dañu am un programme de formation de deux mille femmes dañu fexe ba ñaari junni jigéen ñu former leen ñoom ñu mën a former ñeneen mais loolu dañ koy commencer biir Thiès ville pourquoi département bi dinañ ko dinañ ko ci ubbi rek mais Thiès ville moo ñu ci gën a amal solo parce que dañu gis ni initiative de formation ak autonomisation yi tey dañ ko jëmale ci kaw gi ba pratiquement ñi nga xamante ni nekk ci dëkku taax yi dañ ci xaw a tardé donc ñu bëgg leen former ci loolu ñu mën a nekk ay euh, agent de développement formé boo ngeen gisee ñu njëkkee ci lépp lu nga xamante ni mi ngi nekk transformation fruits et légumes parce que ñi ngi jëm ci koor gi te gis nañ ni pro consommation fruits et légumes dafa bari luñ koy soxla te jigéen ñi ñoom ñoo koy chargé wu moo tax ñu jëloon décision former leen ci euh, ci loolu ak waa Windhoek ak à USAID mais yamuñu foofu dañ ci profité également parce que quand même ñun ñuy politique waxuñu ñu dafa mel ni dañu ragal wax jigéen ñi liy dëgg jigéen ñi liy dëgg mooy financement la ñu bëgg parce que financement daf lay jox xaalis cash mais gis nañ ni jigéen ñu bëri seen àdduna yàqu na ndax financement maanaam da ñëw ñu lebal la nga dem ci banque bi dañ lay lebal der jox la nga téye sa xaalis et tout fekk li ngay def mooy euh, wut bor fayeku bor fay bor dese bor donc ci rythme boobu nag ñuy dund ñun dañu décider ni dañ leen di euh, jàppale former leen parce que li ñu xam mooy formation moom ku ko deful ku def formation Euh, ku def ku am financement te amoo formation daanaka moom euh, police nga jëmee donc formation sans financement euh, financement sans formation égale police gendarmerie convocation tribunal ñu jàpp ni nag loolu dañ leen ko war a wax mais accompagner leen ci ñu gëm ni ministère de la femme am na coppar yu mu war a indi jox ko jigéenu Cees yi ñu ne ñun nañu njëkkee ci former jigéen ñi en tout cas commencer leen former ba nga xamante ni bala ngay dem di leb di nga xam tey parce que tey ñi ko def ay formation bi koo ci jox junni rek bu demee jënd euh, suukar jënd euh, xobi euh, bisaab jënd lu mënti jënd mën na ko defaraat léegi mu nekk li nga xamante ni bu ko jaayee mën na ci gañe presque ñaari junni loolu nag dafa baax ñu wax ko jigéen ñi ñu wax ni leen financement baax na mais financement bu àndul ak formation coono la lay indi kersa la lay indil gàcce la lay indil aussi parce que tam jigéen nga toog ñu indil la lii yaa ko leboon nga ni maa ko leboon fayoo ko kaay wuyu police nga ni woo quatre heures dañ maa convoqué ak yooyu loolu baaxul te ñun liñ leen gën a jàppale mooy ñu sàmm seen dignité sàmm seen ngor je pense que loolu mooy mbir mi dégg nañu aussi li ñu wax ci 8 mars bi ci la ñu jëm ah dinañ leen jàppale ci taxaw leen mais lépp dañ koy def daal ci dégg ak ku nekk di defal wax sa morom li mën a nekk moo tax ñu leen participation foire du fanweeri jigéen nga koy defal bu ñu demee ba am quinze groupement yi nga xam ne bu ci nekk mat na cent mu nekk mille cinq cent nit nekk ci quinze groupement yooyu boo demee indi leen stand nga xamante ne stand ba groupement bu nekk kenn la fay teewal bu jaayee bu ñëwee jox la mu am njëriñ loolu nag mën nañ ko def ci Sénégal comme mën nañ ko def à travers Euh, ak produit yu bari nga xam mën nañ ko def ba pare buñ ci jógee ak ASEPEX mën nañu xool nan leen di yóbboo dans la sous-région. man maa ngi tudd madame Diagne Fatou Diawara dëkk ci cité ouvrière euh, di bàjjenu gox euh, di conseil départemental de Thiès tey nag vraiment li ñu Maodo indil fii Thiès dafa dafa yegg si fii si jigéen ñi wax dëgg yàlla ñu ngi gërëm la DG ANAMO Maodo Malick. ndax euh, lépp lu ñu daan indi ci développement indi ko ci formation si département bi lañ ko daan yóbbu moom nag mu ni il na est pas question balaa ñu indeeti dara ci département dañ koy indi fii si région de Thiès pour les femmes vulnérables ñu gis ci seen bopp ñu liggéey am suñu autonomisation bu ñu amee suñu autonomisation comme ni mu ko waxee rek Maodo tënk na ko le DG l'ANAMO nee na bëggatul ñuy suul bukki di suuli bukki ndax euh, financement yi ñu ngi bëgg sonal léegi suñu amee suñu formation am suñu euh, renforcement de capacité lépp lu ñu formé bu jógee si banque yi dinañ xam fan lañ koy dugal Maodo nee na dafa. lool solo formation bi daf ñu amal solo amal solo bi mooy léegi mën nañu liggéeyal suñu bopp la ngay wuti loo amee sa comme bu tuuti mën nga ko liggéey mu duggaat sa kër di nga ci am sa santé am sa wér-gu-yaram am si sa jàppale sa biir kër ndax 5000 francs yi ngay jël di ko yóbbu feneen moom ngay jël jëndee ko say matériel say euh, say matière première. nga liggéeyewaat ko mu renforcer la nga am si sa doole am si sa koom surtout ak santé. formation bi ci lan lañ ñu mën a defar bisaab ni ñu koy concentré ak ni ñu koy defee siro ak ni ñu koy defee jus. ak en même temps tamit ñu defal ñu ko ni koy defee confiture confiture bi day delluwaat ci njaboot gi maanaam njaboot gi mooy li ngay jël di leen ko jëndal ay chips ay leneen ak leneen yow sa yow boo liggéeyee sa koom bu xale yi day xëy suba mën nga leen ko defal ñu koy ndékkee parce que am na fer. am am na euh, euh, capacité yëpp a ngi ci ndax euh, xale yi soxla nañ bio bi soxla nañu fer li ñuy dem nag di liggéey feneen sa yaay mi ngi koy liggéey mu ñëwaat duggaat sa biir kër duggaat sa biir njaboot ndax ma Maodo le le du ANAMO bëggatul jigéen ñi doon ay vulnérable dafa bëgg ñuy liggéey di dugalaat sa biir kër di dugalaat si si biir njaboot gi moom li muy bañ mooy ah ñu bañ ñoo sonalati ci financement financement naam dëgg la waaye da ngay am formation. te soo mënee sa liggéey mën li nga mën ku la jox xaalis di nga xam fan nga koy dugal je vous remercie. Khalid Chamed. Mon nom c'est Khalid Chamed. I'm coming from United States. Je viens des États-Unis. But I'm originally from Sudan. Mais je suis originaire de, du Soudan. In the last two weeks I became Senegalese. depuis deux semaines maintenant, je suis devenu sénégalais. The importance of the training of preservation of food. As you know, l'importance de la formation est d'apprendre aux bénéficiaires les principes simples de la transformation de fruits et légumes. In Senegal and most of African countries, we have a lot of products, but we get wasted because de fruits et comme ça qui se détériorent et nous avons euh, souvent les moyens de euh, préserver ces produits. This will, give the woman very simple method how they products that can make it at home or if they want sell it in the market. D'où la nécessité donc euh, euh, d'apporter aux femmes, aux bénéficiaires, des méthodes et des façons de faire qui leur permettent donc euh, de transformer ces produits, de les mettre sur le marché afin que euh, les, rentabilités puissent être créées. And as you can see from the samples that they make here, They just use bots and spoon. That's all they need to do. And hopefully, uh, uh, ANAMO and other organizations will help them to bring the right equipment et that they can do better. Et comme vous pouvez les voir euh, à travers les euh, étiquettes que vous avez tout à l'heure, à travers juste euh, des marmites et des, et des, et des, et des cuillerées, vous pouvez euh, arriver à, euh, à avoir des produits transformés. Donc ça, c'est une bonne they are very, smart women and they want to learn more. Sincèrement, c'est des, des, des, femmes euh, très euh, intelligentes que j'ai rencontrées et elles peuvent faire encore mieux. Thank you to everybody contribute to make this happen. Je remercie tout, euh, tous ceux qui ont contribué et je vous remercie beaucoup.